takk jug takkaat jug takkaat jug takk jug takk jug takk jug takk jug takk jug takk jug takkaat jug takkaat jug takk jug takkaat jug takkaat jug naan fes mes mente naan may ci leeri maam yoonu murit naan wax dëgg loxum ñun naan Baye Fall ak Yaay Fall benn Baye Fall moom muy maam Seera Fall ñun ñëpp moom la ñuy roy ñun ñu ku dul tàmbale ci maam dooyam ci maam dégguñu la yëguñu la dunduñu la ku nekk ca xaj da nga koy bàyyi ca xaj ba ko xaje ñuy ànd ak ñoom di mbow ku nekk ca sën bu man du ma wax ak moom li maam Bamba wax rek laa wax li maam Bamba wax rek laa wax li maam Bamba wax rek laa wax xaj nag moom boo demee ba fekk ko fa mu nekk ànd ak moom di mboow yaa xam ñii jaraloon ma saaga jaraloon ma xulloo jaraloon ma yuuxu jaraloon ma lenn ndax dégguma ki niy wax man maam laa xam ay Cheikh Ibra Fall lu ku neex waxal ci Cheikh Ibra ku neex géntal Cheikh Ibra ku mu neex waxal ay Cheikh Ibra ay dantal maan ak yooyu ñun xamuñu ko xam nga nan xam maam maam Serap Fall yallaahu yallaahu umuri jëlu léegi man maay Baay Fall takku jóg nga xam ne nii damay tàmbale ci maam di yem ci maam sëñ Fallou Fall mi ma dégg sax muy wax waxul maam ay Cheikh Ibra lay wax man ku dul wax maam dunduma la ku dul wax maam dunduma la ñu tuddagunu làmp uburu jëlu léegi yàllay jaam ñi yaakaari jaam ñi borom jaam ñi ki tàkk Bamba fen ñuy maam Bamba maam Serap Fall maam yàlla point bu leen ñu rey yoonu murit ñu dañoo dépassé yii ba leen lu jug ngeen tëb wax lu jugul ngeen tëb wax ñun nañ cee pare ki ne ca xaj dañ koy bàyyi ca xaj ba koo koy xaj ñuy andi mbuw fa yàlla ñun maam la ñu ko loolu maam dund nañu la te Cheikh Ibra laa leen dégg ñuy wax kon nag <laughs> man maa ngi ñokkalee te man maam laa xam ku dul maam xaw ma la ku maam dundu ma la ku dul maam yaguma la. nan ngay nekkee yow sëtu maam Seera Fall sax naan ay Cheikh Ibra yow sëñ Fallou Fall yow kii war na tax ngay saagay nday ñun doon war ma ñun xamee wuñ ñu ay saagay nday ñun danoo war am war ma na ñuy jéggal nit ñi na ñuy yërëm nit ñi yéen daana sey bi dafa tax ngeen di wax bàyyi man maa ngi kontaan de dégguma ko mu wax maam te mu wax sax garaawut ay gént ay maam ay maam dafa tagg maam eh, bu leen ñu rey waaye bu leen ñu rey <laughs> man ay Cheikh Ibra xaw ma ko xam ma xam maam. maam yow sëñ Fallou Fall boo saagaa nan la taalibe yi def boo saagaa ñun ay nit yi nii àdduna bépp bu ñu jógoon di wax Cheikh Ibra Fall dunduñu leen waaye ku jóg ne maam ñu taal la ku jóg ne maam ñu taal la waaw ah, waaw exemple non violence yar ak teggin diplomatie nan bàyyi waaw maanaam ku naan Cheikh Ibra sax bu la neexee saaga ah. waaye ñu naan maam dañuy am ma di dund maam di ko dund maam yàlla Ahmadu <laughs> Borom jaam ñi dañuy dund maam sóoru faal yàllaahu dund ñooy féeri nit ak ay lobeeki million ay ay day jàllook ay poussière yu xeeñ ak waxuñu leen yooyu dunduñu leen bàyyi leen di may nitu kese yi ay bës xat da koy bàyyi xaj ñu àndi mbaw ku ci àndi mbaw rek yaa xajee yam ñun li Mbàkke wax lan wax fële ma nga fële ca xaj ca xaj ca mbalit ma ca mbalit ma ca sën ba ca sën ba bu leen ñu fontoo nag na ran jub xoj dégguñu fi lu tax ñuy naaw ak lu tax ñuy caddi caddi bu leen ñu rey xam ngeen lu leen wax bu leen ñu rey maam Bamba maam Serafal maam yàlla point nañu wax Cheikh Ibra waxuñu ko kii Cheikh Ibra lay wax ah Cheikh Ibra waxuma ko man sëñ Cheikh Fall sëñ Fallou Fall Mboor yow ay Cheikh Ibra ngay wax sa maam lu toll ni sa maam yow mënoo défendre maam maam kenn mënu ko défendre yeen ñëpp lem leen ba mu ron kulluhum na ñëpp lem way yow maam sa rafal kutur tuddul sa ruux gi du ne ku tuddul maam do ne kon boy wax ay Cheikh Ibra man mëno ma yëngal yoonu murit ñun ñu ci mer ñun ñuy saga nday saga daf ñoo warul nanu am war ma dama ne aduna gep buñ taxawon doon weenu say di songu dañ leni daan ta manum manum kessa buma ma ci kanam mën naa lem banu ron bu leen ñu fontoo li jar wax nay jar di wax li jar wax nay jar di wax li jara wax nay jar di wax bu leen ñu indi wo leen fi bamba ji dafo leen fi bamba ji do leen ci tus yeen ñëpp kenn def fi tus yeen ñëpp ayam yam ahmadu moo demoon géej daan mam bamba mo daan mam lampa tak bamba feñ do leen ci tus yéen ñëpp na ngeen lem ba mu ron bu leen ñu fontoo sëñ Bamba maam Seera Fall ñoo moom see seeni ndey moom seeni baay dégg ngeen ay day jàll mi sax maama ko moom daan nangul rek waaye moo xam mbirum boppam la na topp na le jàll ca xaj ta soriñu bu leen ñu fontoo bu leen ko fi may deux ans ah. mais yéen lan la yéen bu leen ñu fontoo waay bu leen ñu ah. wa man xam ngeen ci la laa mer sëñ Fallou Fall miy wax Cheikh Ibra ñoom ñaar ñëpp ñuy wax Cheikh Ibra yéen wax li jara wax nan wax nan kennal maam dund ko yàlla yéen talaraar yi wa maam la ñu wax ñu naan ñu ay Cheikh Ibra ban Cheikh Ibra kan mooy Cheikh Ibra ñun maam sóoru aboori jéelu léegi maam Cheikh Ibrahima Fall yéen laa woo kooku doo ko woo di wax sëriñ doo ko woo di wax keneen ku dul maam yàlla bu la ñu fontoo na ran jub ku mu neex gënt maam ku mu neex wax ci maam ñun ay kàcc ak koo xamante ne ay day jàll la xëy xunn di ay kàcc kese ñun yëguñu la. yaa naan maam xeesut naam see dafa tax ñëpp bëgg ñu laay kaaba ga <laughs> maam ma ñuul ba yow ñun ay bee la ñu fontoo na laay jub ku la xom sëñ fal Fall lii bula ko dara jaral bula ko dara jaral bu nit taxati ngay saaga. bu jigéen ñi tax ngay saaga bu seytaane tax ngay saaga bu àdduna tax ngay saaga saaga fajul dara day wàcce personnalité di wàcce martaba te sëriñ nga am ngay taalibe yu la gëm del wane lu lu ko jar xëtër xëtër gi dara jaru ko fi xëtër xëtër gi rafetut lii baaxut taalibe da nga leen a war a jàngal akuk taalibe da war a amuk taalibe mën a ami taalibe waaw di leen teg ci siraatal ma di leen jàngal yàlla di len jangal waxu sel ak waxu yiw ay day jall mi taxut ngay genn di saaga fii boo fi joge yaay genn di saaga du man du kenen ñun maam yalla hu nan wax serigne da ngay mat serigne nuru serigne di wax waxi serigne yor kàddu yi sibli sa saf li sa saf sàpp ak yàlla di saaga yow ñii danoo jar saga danoo jar di saga man yow lay waxal de yow mi genn di saaga que la dernière fois ngay genn di di saga lu leer la la tegal barke la ilaha illallah wa mais raay jub xoj fii day jub xoj bu leen ñu fontoo de yéen ñëpp a yem ngeen naan ay Cheikh Ibra Cheikh Ibra da ngeen a mënal dara Cheikh Ibra yow sëñ Fallou Fall yéen ñëpp a yem mënoo leen tous maam Seera Fall ngeen naan ay Cheikh Ibra maam sooru ëboor yëllee yallaahu yallaahu war maa leen ko da ngeen naan seen maam la te xamoo leen ko seen kàddu yi ngeen di wax day wane ni sax xamoo leen ko da ngeen a sant Fall rek ne ci xamoo leen maam xamoo leen maam joxoo leen ko cër doo leen ko woowee maam fu nu tuddee bi Ibra ngeen tëb naaw fexe leen di yëg maam ba fu nee maam ngeen ne fes naaw ci leer yi maam lañu wax waxuñu ay Cheikh Ibra kooku dafa romb seex romb sëriñ romb malaaka romb yonent romb ku luqum doxal ñëpp du duy jaam ñi di jariñ jaam ñi lan la surtout maam Seera rafal daa war a génn fii di saaga ci réseaux sociaux yi ndax lan talibé maam Seera rafal ab talibé murit rek daa war a génn fii di saagay nday dara da la ko war a jaral yow nga doon maîtrise boo xam ne mer warta ànd a jaw ay tàng ay yooyu yëpp warta nekk ci yow ñun dañoo romb tàng ak ak teng ak métti ak koste jàngalal taalibe yi war ma da leen am war ma njiiti am leen war ma am leen respect am leen taalibe sàkku leen taalibe sëñ Tuubaa ak maam a Faal ñun ñëpp a ci yam nanu sàkku taalibe te am war ma te xàmmee te ràññee te xam li jara wax ak li jarta wax nekku ma fi di tontul maam Seera Fall nekkuma fi di xullool maam Seera Fall fi di défendre maam Seera Fall maam Seera Fall mooy défendre seeni ndey ak seeni baay di défendre seeni ma maamaat yor kullu ruxu moom ko moom seeni ndey ak seeni baay ku nangoo ku nangul kulluhum àdduna bépp laa wax religion ak yéen ñëpp kulluhum maam Seera Fall moom seeni ndey moom seeni baay kon kooku romb na ko neex ay seex bu leen ma fontoo kulluhum na raay yëpp yoonu murit yàllaahu yàllaahu na ndox ku dul maam yàlla la moom la ñuy dund ci Ahmadu ko ci yëg leen ñu fontoowaay mais yenn ñàkk worma yi mooy lan ñàkk respect bii ngeen di doxee ci yoon du yoon tëb ku ne foog ñii xanaa ngeen mënoon ngeen a tëb jug xanaa ba sëñ Mountakha mën ngeen a tëb jug ndax maam Bamba maam Serap Fall benn lan kaddu sëñ Mountakha moom mooy kaddu waaw ki nga xamante ni moo fi toogal maam si xibra muy sëñ Cheikh Demba Fall genn kaddu nan muy ñaar kenn ñun ba nu waroon bu la ñu fontoo de nga naa ne eh, boo leen defee ni sax day mel ni sëñ Tuubaa maam Cheikh Rafal duñ benn day mel ni danoo séparé wu na raay jub xotti wenn sañ nan wax ñoo leen gën a tàngal la ñu fopp ñii kii ak ki mu àndal ak ñenu yaakaar ak la ñuy dox ak kënu gëm ak fa lépp soqee ko dama leen a dund te yëguma leen comprendre ngeen li ma leen wax du ñii ñoo may tax di jóg eh ko dul maam yaakaar maam baam ma maam sowru abori jàll la yàlla dunduma la eh, Cheikh Ibra man Cheikh Ibra loo xam ñun Cheikh xaw ma Cheikh Ibra man bu leen ñu fontoo man eh maam la am àjjana moo yëngale doom bu génnee te eh bu doom génnee doo doy de dafa yàlla <laughs> doom ngi teew baal <laughs> doom fan yi daa réer nag doom ngi ñëw moo leen nga naan daa fab ay mbela mbela di di saaga ko fi saagaat rek eh wa nga leen déglu sax jëppi leen yéen ñëpp <laughs> Cheikh Ibra leen bu ma leen fa fekkoon doo leen doy wa bisimilah jàmm sar-sar la takk jug takkaat jug takkaat jug naan fes nes nante naan mëy sëñ Fallou Fall lii bu la dalate kilifa du def lii lii du waxi kilifa lii du jëfinu kilifa kilifa warta mer kilifa warta saaga kilifa tamit dañ koy war wormaal leen maam Cheikh Ibra te ko maam lu mu nekk seeg maam seeg maam seeg maam benn maamaam muy maam Cheikh Fall mooy maamu ñëpp nañ ko jox cër te fonk ko